قد يا خفيز كل من تعلق بألواهك وكل أدلقاء asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci kilifteefu Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir xalif général kulli murid ak ci ndigalu Cheikh Babacar Mbacké Sadikhouna mu kabaro seet ci moom Cheikh Anta Mbacké borom gaawaan waa fédération daayira sant borom gaawaan cellule CONACAP ñu fas ne amal ñeenteelu édition journée culturelle bi ñu jaglele Cheikh Babacar Mbacké Sadikhouna mu kabaro mbokk yi bés boobee nag di am ci taxawaay ki nga xamante ni moo di Cheikh Ndiaye ñu gën koo xamee ci l'infatigable Baye Fall bés boobee mbokk yi gi kañ lañ koy amal xanaa fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars atum 2018 fan lañ koy amalee ñu ngi koy amale ci station xar yàlla janloo ak pharmacie Baxdaat mbokk julli yi mbokk taalibe yi bés boobee nag daañ ko fës yéene yendoo ak programme yu am solo ndax bu ñu xëyee ci suba teel daañu nag jàng téere yàlla suñu borom bi Maulana Tabarak wa Taala jàng alxuraanu karim boobe waaye tamit daañu yëkkati xas di Serigne Touba Xaadim Rasul yi daañu joxe ay bernde ni ko Serigne Touba Xaadim Rasul taamoo di digle taalibe yi yi joxe xéwal yi ñëpp xéwlu daañu fa amal ay waxtaan yu am solo mboolem si ñi fa teew mbokk yi daañu tamit amal thème bu am solo te yaatu waxtaane ko bokk na ci uwo yi ak jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmoo ko ci jamono ji nan la ci jullit bi mbokk taalibe bi nara taxawee bi mono l'attitude d'un musulman face au précipice et aux vicissitudes de la vie mbokk yi loolee nar a am nag ci tepp ki waral bëccëg gi ki waral journée bi ki waral bés bi Sadikhouna Mou Kabaro surtout Serigne Mbàkke borom gaawaan moom ma muy sang bu tedd bi dana yëkkati kàddu dana waxtaan ak taalibe yi saafonteeg ñoom su ko defee mu ñaanal taalibe yëpp delluwaat mbokk yi bés baa ngoog daayira cellule CONASAP bu fédération sant borom gaawaan ñooy fas yéene woo ñëpp képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah woote baa ngoog gaawal gaaw bu la fa kenn jiitu ndax sant rek a wóor jërëjëf Sëriñ Tuubaa jërëjëf Sadixuna Mukabaro hamdi wa shukri